Euh, mu nekk ay méthodes yoo xam ne itam da koy utiliser contre son fils di doomam euh, contre aussi jabaram di ki nga xam nekk moo di Marième Faye Sall waaye contre moom itam moom kese di ki nga xam nekk moo di justement euh, Macky Sall donc nag ki nga xam nekk moo di Cheikh Yirim Seck loolu la daal di yëkki arfan foofu si daanu palais naka nu ko daal di jàngatee que ni ñoom ñu ngi nekk di waxtaanee pour empêcher Macky ñëwaat. oui sëñ Fallou xam nga on est dans un pays de droit donc c'est normal. képp ku ñu diffamé wala ko yaakaar ni ko jàpp ni que dañ laa diffamé nga dem fu mbaxana doonee benn porté fa sa hmm. man maa ngi fàttaliku ay propos ba jaxate kii comment dirais-je Cheikhouna l'ex commissaire hmm, ba muy ne palais dañ doon xeex yaa ngi fàttaliku tey Cheikh Yérim Seck ñëwaat na ci la même di naan dañ doon réunion palais waxuñu dañ doon xeex mais dañ doon réunion palais empêcher le retour pour empêcher le retour de Macky Sall té nee na Mimi Touré daf ko féké maintenant Mimi Touré mo yay porter plainte ah hmm. bokkuma ñu jiiñ ma fa la mëna a sétalee sama bopp fu mu mbaxane doonee ben lay sétalee sama bopp moo tax la Mimi Touré elle a le droit de porter plainte mais est-ce que plainte bi du kolox débat parce que Cheikh Yérim ana yeen preuve la war mëna yor non pour attester a une preuve là wax euh, Mimi Touré. mais le laay mais peut-être il a il a peut-être des sources yoo xam ni tam da informé depuis la prise. sûrement ouais d'accord bu demee ci kanam enquêteurs yi. mu les sources mais mais révéler les sources madame vous dem mu continuer. continuer. ah fan lay continuer Yo, xamoo faut mu continuer bon diffamé nit bon wax boo sosalee nit te alors que li ngay wax ni waxoo dëgg fan lañ lay yóbbu dañ c'est le seul ministre comment dirais journaliste <laughs> le seul journaliste au Sénégal <laughs> bu à ay diffamation Cheikh Yérim Il dafa battre le record de ay diffamation parce que non la mel du wax lu dul dëgg chaque jour ma wax Cheikh battre record de ay diffamation Il ko plainte ci diffamation dañoo bëri tellement que amana mom histoire du Sénégal ci journaliste yi lañuy bind ci mom ni que mom moy battre le record ci ay diffamation lu mu am ci ay diffamation benn journaliste amuko Sénégal diffamer ay nit sosal ay nit wax ay nit lu dul nga japp ni que loolu moy journalisme bi yow da nga né yow un tu es un journaliste d'investigation do def sa investigation nga ne non dañoo réunion palais ma wax la benn information réunion palais yëpp Mimi Touré dara parce que il n'est pas un homme fort du palais pour nga xamni Cheikh Yérim Seck waxul deug Mimi Touré réunion yi ñi def paré Mimi Touré fekkewul parce que il n'est pas un homme du palais il n'est pas un homme fort du palais xam nga moom oh, oh, kii am est mom xolal chargé de mission chargé de mission fële. mais yow yaa ngi di ko défendre défendre ma Mimi dama ne défendre ma ko bi pour wax la ni ki Cheikh Yérim Seck lu mu wax dara du ci dëgg c'est ça la réalité Même c'est le journaliste bohame xam d'aller da da wax affaire te dossier si mës gis preuve mu andi lako au moins gis nañu fi ay nit yoo xamante ne bu ñuy accuser ay nit sax dañuy andi ay documents ne la passe baa ngi voilà le contrat qui a été signé moo tax moo tax maître Moussa Diop dam ko bëgg maître Moussa Diop dam kaa bëgg ti si xamal lu tax ma bëgg ko. moom maître Moussa Diop bu lay accuser day andi page day andi ay document nee la signé na contrat bi ak Mimran hein? voilà le cachet voilà ñu ko signé voilà voilà voilà mais du yem ni ci ay simple accusation parce que xam na que bu la accuser yow am nga droit porter plainte Cheikh Yérim Seck xam na que bu accuser nit ku accusé accuser am droit porter plainte donc moo dama ne la loolu nekkul affaire bu ñuy fajal seen bopp wala Mimi Touré mënu ko fajal bop justice moo ko mën a fajal moy manam bu fekkee da nga japp ni que Cheikh Yérim Seck daf la diffamé mais demal tout simplement nga porter ko plainte demal nga porter ji ko plainte c'est c'est ça c'est facile que ça c'est facile que ça c'est Cheikh Yerim Seck d'où ci d'où si loxo ça fait même pas deux semaines. Là, moo ko fa ouais ouais Tu hmm. du loolu nous convoqué mais est-ce que raison non non non d'où raison du loolu moo ma hmm. alors mu ni ñu porté plainte. Bala loolu plainte lu Yagoul, ci lu Yagoul ah am na wala amoon donc c'est la même chose Vous fekkee yow da ngay sosal ay nit da ngay waxal ay nit lu dul dëgg mais ils ont tout simplement le droit de te porter plainte c'est facile que ça c'est comme bonjour. waaw euh, c'est clair mi non, exactement par rapport ak ki nga xam ne que moo di euh, Cheikh Yérim Seck jàpp ni tam jamono ji.